salaamaaleykum salaamaaleykum monde entier man la soxna faatu di réincarné rôle Bintu ci Arrêt caba caat bi ñëpp di wër tey nag moom damay ñëw damay yaru fas yéenew maa sax réew parce que ñu ñi nee nañ Bintu dafa réew Bintu lii tey dama leen di wan beneen facette Bintu bu leen sax sonn ah mag ji. <laughs> waaw yow xaaral maa ngi ñëw ci yow salaamaaleykum waa Sénégal man la Seydina Aline alias Sora di incarné rôle Zor ci série Arrêt caba waaw comme ni ko sama rekk ji waxee Bintu yow moom xaaral maa ngi ñëw ci yow tey amul toos amul sama yaa amul kenn da ngay régler wala ma gaañ la. gaañ ah tey du sóore bi ñuy gis ci arabel caba de <laughs> baax na. maa la ko dul may sax nag maa la dul may nga may gaañ parce que tey duma la may sax nag nga may génneel sama ay jikko parce que tey moom téléspectateur dama leen bëgg a wan ne Marodi ñëw woo te ñoo du ma fi sax nekk nag di génne beneen jikko tey yaru laa indi indil maa ngi nii nag damaa fas yéenee kuul wan leen bu ma yàqal nag dégg nga bu ma génnee sama jukko waaye bàyyi ma nag. ah kon tey loolu nga wax. loolu laa wax tey moom damay changé. waaw Marodi nag ba ma fay dugg dama def casting. Mhm. premier casting bi sax ñëwoon na ba war a def juste maa ngi taxaw ci bunt bi après si la ko waa Marodi annulé parce que dafa bëri nit coow li foofu jàppal bàyyil bi yaa am gën a xam ci deuxième semaine bi laa defaat casting yàlla dogal ñu jël ma. waaw Marodi nag bala nga fay dugg faa nga def casting loolu damaa bëgg nit ñi xam ko. Mm-hmm. faa nga def casting casting nag métti na méttiwul ndax man dèjà ba may def casting aw ma numéro aw numéro dama ñëw noonu gars yi na affaire yi par ay numéro la ma toog après si la gars yi yokkaatee noonu ay numéro ma def maa ngi koy agsi ay 7 ba 16 heures ci ngoon laay soog a def casting xam nga ne loolu kon métti na après ci lan ma woo ne ma genre Marodi soxla na la ñëw fa. ma dem waaw noonu laa def quoi ba intégré biir Marodi. Mareetoo la woo de ah. soxna Mareetu mu baax mi bëgg nit moom la yàlla jàmm yàgg moom woo Mareetu. comme ni ko mag ji waxee rek man tamit par casting laa duggee Marodi euh, ay vers une heure du matin laa yëg ni casting am na je me suis cinq heures du matin préparé wu dem mu bëri ay nit buuxante bi waa Marodi annulé ko comme ni mu ko waxee mu ñibbiwaat suñu kër. sama benn xarit Nelson woo ma ne ma dugalaat nañ beneen bande annonce beneen bande pour wane ni que ni casting amaat na mais par numéro pour gën a defaraat rang yi ordonné ko ma woote ba sonn moom mu wooteel ma ñu jox ma numéro 535 moom lañ ma jox jox ma heure 15 heures dama exi dugg def casting bi génn quelques jours après sama téléphone bu sonné rek ma daw suñu waa kër bu sonné ñëpp daw jël téléphone bi di kan mooy woote. man daal benn ngoon mareetu woo ma allo ñun la waa boîte Marodi dañ la soxla woon ma fecc kër gi yëpp buntu kër gi laay dawee ba ci escalier yi <laughs> kër gi ku romb man la waa Marodi woo nañ ma mais nag c'est pas facile parce que boîte bu mag la. Hmm. ñëpp bëgg faa dugg mënoo xëy un bonjour rek nga dugg fa du dangay ñëw tey def casting tey ñu jël la non dañ lay tester xool say compétence ndax rôle lu soxla mën nga koo et tout daal laa def ma dugg Marodi waaye avant mu mais bi mu duggee Marodi commencé jouer série ñu koy seetaan da ngay romb ci mbedd mi sax nit interpellé la yow diw bintu lu tax nga bintu lu tax am jikko bii ci série bi suis et pourtant non mais dafa changé lu bëri des fois da ngay gis nit koo xam ne daf lay romb li fay daw rek dafa ne réalité la parce que day am da ngay romb nit ki la même chose bi lay dund mais joo doomi maire yi dañuy ñëw di yàq sa yi maire du ñëpp des fois da ngay gis doom boo xam ne day ñëw pour defar damay génn nit ma kaa ñu man danga maa neex sa fan si laa bokk mais daal lu bari la changé des da ngay gis nit koo xam ne sax danaan la sama doom da laa bëgg dama koy dama bëgg jël sa numéro nga xam ne danga ma koy yeddal tout pour xëcc ko daal mu nekk ci biir mais daal lu bëri la changé lu bëree bëri amal ji. waaw ah, question boobu moom damay sawar di tontu quoi. <laughs> ndax man su bi ma njëkkee ñëw Marodi rek maa leen ko doon wax man moom dama siiw avant tout d' abord man dama siiw mhm, rakk ji xam naa li may wax. saabu du fóot boppam nag. xam xam naa li may wax yaa ngi dégg su bi ma njëkkee ñëw Marodi ma wax leen ko mais nag changé na nag quoi lu bari man avant tout d' abord dama daan yomb nit ñi xam nga man damay kaf damay ree damay ambiance quoi mais. ci kaw may série bi tamit daf ma gën a xamal sama bopp ma gën a xam man maay kan comprendre nga yi ma sañoon bu njëkk sañatuma ko waaw yi ma sañoon a def bu njëkk sañatuma ko ndax léegi forum bu ñu ñu ngi lay baaxeel xel ñu ngi lay woo jox ma sa numéro nan photo mais yow sore yow nii bëggee football mais yow est-ce que mën nga football naturel nii so xam nga moo loolu quoi yaa ma gën a xam. Mhm. des fois nag ay nit dañ lay romb di la ci sa ay faux pas la ñuy doxee. xam nga lépp rek ji. da ngay mer sax mais doo mën a génn wane ne da nga mer da ngay génn même boo meree sax. yow sourire ngay génnee. da ngay ngay maîtriser da ngay maîtriser. boo maîtriser wul nooy def da ngay reetaan kaf xaqataay di fo ak nit ñi bien que ne yow amna lo loo mi ngi sa biir xol te tu peux pas le montrer. mom lañ fi am ndax ñun lañ fi tek pour ñu yeddaat. kon tamit bo génnee tamit ak lepp lu la mënti met da nga ko tek ci suuf xam nga di kaf di ree yam gëna xam. waaw <laughs> question boobu nag damay sawar di ci gën a tontu di ci gën a tontu ndax ci laa xame ne fii moment ah, àdduna bi loo bëgg rek te gëm ko ah mën nga ci réussir quoi ma loolu toogu moon sax ba di ko xalaat un dina ñëw ma commencé di jouer ak toos xam nga xam ne man kii man moom laa bëgg li muy def xam nga daf ma marqué et tout tey ma taxaw di jouer ak moom ça m'a fait quelque chose daal dëgg yàlla ça m'a fait quelque chose parce que yokk na ma lu bari xam gën maa xamul lu bari ci aar bi et tout quoi du ma sori chaque instant day wax ak man même bu ñu tourné sax des fois ni ay yenn séquence daf may woo na ma rek ji séquence bi fii nii mënoon nga dugal lii ak lii ak lii noonu quoi daf may indiwaat daal vraiment daf may indiwaat. comme sama yaay ñu ko waxee dafa naan doom nga jël ko jur ko maye ko des fois duñ bëgg di ko def yenn yi dañ koy bàyyi ak jikkoom.

fondement bu ñu defar rek ma creuser du ma bàyyi dara mu sedd de ce fait nag moo ku wax ma préféré waas la waas la ba nga set teg la kenn sañul wax ak man buñ ne trip dip bintu ñu ne paqueté leen ba mu jekk nœud papillon tek côté ba bu ken tudd turam bu ñuy débat sax tudd sama tur ma romb sama ngelaw rek bu jaaree kenn du wax wax ma dëgg. ñëpp laa terrorisé ñëpp nga napp. mère bintu ñëpp nga napp. toch. taawu kër bi jabaru taaw bi bon bi sax mu ngi may duut ndaaj xel. Ah. di c'est le contentement daal qui continue. problème mu kër gi yëpp yaa koy bëgg a lijjanti te kenn du wax. jàppal ma taamu woon la puso bu lab ci géej ne gasi mbal ma du ko jàpp. borom mbaal ma du ko jàpp puso bu lab ci géej na gasi. neexul ba neexul nag may caat loolu mënut a ñàkk. dëgg laa la wax de. mënumaa bañ a yëngal kër gi nag bañ a réew ci kook borom pax ba ci biir bàmmeelam xam nga li ñu naan des fois dangay génn dem kër jàmbur sa jikko ci bundu kër gi la lay xaar boo fa defee trois jours mu fekk si la waaye nag benn côté nag damaa yoru de. amanti ah, musoo mm, yoru pour te dire tontu ci li damay defarwaat mais nag blague à part pour vous dire vrai Soro naturellement damaa yaru bay dóor pooj yaru naa. mën naa kaf mën naa ree sama àdduna yëpp ruube la mais bu ñuy xool personnage bi dafa am personne am personnage parce que Bintu dañ ko dañ ko bindee cadre boo xam ne dafa war a réew di ruube kër gi lu fi lu fi lu fi lu fi olof Njaay def loo xam ne c'est pas défable lu corrigé waabul la doola bàyyi mu sedd moom daal na delloo buum ca mbooy mbooy ba mais si cadre Soxna Fatou foo ma fekk daa respect laa jox ñëpp man même sama yaay keroog dañoo toog ñu xool ma ne ma yow naturellement yow lii dañ la koo bindal wala nii nga mel ma ne ko des fois dañuy bind des fois yow nga am loo ci yokk parce que dañ ne rôle caat caat dafa war a réew. Mhm, noonu dafa war a yëngal noonu moo baax. sàppali kër gi ba mu saf bu ngeen xoolee sax bintu daa ñëw commencé génne jikkoy jikkoy waa kër gi man daal mhm. yaru laa def ku ma ci mbedd mi ne ma da ngaa réew tooñ nga ma <laughs> yow ba mu rombee xool ma ba pare. nga soo koy xool ndax réew na am réew ma ma dëgg bu ma jaxaseeg sénégalais yi. non man ba tey garaawul. waaw personnage comme ni nga ko waxee rek ak personne yaa ma gën a xam mais man suuree man mënoo ma nax waaw mais nag ku baax la mhm, bëgg nit. waaw day mel ni man rek sama personnage man suuree waaw suuree tey jii nii xam nga footballeur la mais xam nga foowee nañ ko daal zee nañ nawetaan et tout xam nga mais après sax des xam nga ma dox si mbedd mi day ak nit mu ne ma waa sori yow est-ce que rôle bi nga joué mën nga ko sori yow mën nga football et tout mais leen ah, mooy loolu de daan naa ko def dinaa am mais est-ce que ay séquence football dinaa am des fois ñu wane la ngay football et moom <laughs> si waa moto di la nga leen man sax man sa mën football dama koy laab laab mais ndax sóora mosuma laa gis nga téebal. <laughs> laa okk si mu bi war a paas def. en cas de wu yaay yooyu maximal ngay indi. Bintu moytul ma càmmoñ bii moytul ma kii moytul ma ko bii moom ku lay bañ bii bii ku lay bañ moytul sa bopp de. waaye Bintu man damaa mën li damay mën na la bii moytu ko la wax ah, bii ku mën a football. man de Bintu ah, yow fi ma gën a simuler sa xam nga fan la ba nga fi ba nga fi indilee sa naat bi Mahmoud xawma mu ñëw ci kër gi naan 2000 ouguiya man ma foog ne dañuy génn kër gu léegi sama yaay baay jaay ndekati yoo trente mille cinq cent ay waay. <laughs> gis nga sóora nag ñu wax dara sama gàcce googu boo ko ñu dugg ci domaine boobu ma gis nga bi ma demee wécceeku xool muy trente mille cinq cent damaa am sama yàcc gi daana yeesal damaa mel ni ko sotti ndox. man de fi mu ne deux mille uggee ba nu yuuxu ñun ñëpp mu ne trente mille cinq cent. non désolé. génn ci domaine boobu nag sama gàcce googu kay dama ko fàtte. man ni ma ni ma katti doon xoolee. te na xoolal du loolu kese de du loolu kese de déglu ma rek xam naa li may wax. maam Balla temps yi mayu ko jàmm bindu temps yi yow mbaraan nga nekkee lan la maam Balla jour ko te gisuma la nga di ko ñaan ndewenal. adduna daal moom rof yàqut jën cafka bi lay yokk. waa suuru sa sa dem jóge fële euh, sa ay seeba nu mu tuddati. Dalifor. dem fan. xandaalu. lenn ma ci métti daal mais sa dóor yi may wax nga ñëw ñàkk jom yesu ba nga naan li ma gën a mën lañ ma def dañ ma sëlal ndaw. séquence bu ma gën a neex sama séquence yi séquence dóor yi parce que boobu réalisateur bi dafa ma pesé quoi à Khalifa dañoo ñëw ma foofu mu changé affaire yi daal dugal génnal yaa gën a xam boobu sax commencement bi man sama jëmu bopp man xeex laa ko jàppee woon man sama jëmu bopp xeex laa ko jàppee woon parce que gars yi ñu ngi commencé dóolante bi nii. mais séquence bi ma neex la nag gars dañ ma see dóor affaire bi maanaam dafa naturel quoi. dara dàqul dafa naturel li ma gën a rey ci sa dóor yi sa laaw bi bi ngay dóor. ba may laaw dans le vide dóoru kenn. waajuma ko moo tax waajuma ko. bu ñu ngay tàppet. <laughs> waajuma laaw bi waajuma laaw bi loolu xeexu mbedd la bintu. loolu xeexu mbedd la man nee naa leen li ma gënoon mën ci xeexalal ba def muy sëram ndaw looloo taxoon tamit benn es mu bett ma. côté boobu je pourrais dire kat yi euh, le fait que ñu woo ma ne ma sa jabaru mag mi ngi nekk ci kër gi di jëngal sonal sa yaay damaa meroon bi may ñëw dama bëggoon ñëw rek paquet yi rek dégage ko kër gi mu génn parce que imagine tey nga am sa yaay sa jabaru mag jàpp ko di ko banni banni du la neex ku mu doonoon yow tamit noonu ngay réagir mais benn côté damay wax euh, euh, benn xale jigéen yi nekk seen kër yi caat yeeg ñëpp ci yam

Marodi waxal leen dafa am nag naturellement am na ñoo xam ne ñu ngi koy dund j'ai am naa copine boo xam ne loolu lay dund ak ah, keroog ba ma woowee expliquer ma situation bi mu nekkee franchement j'étais dégoûtée parce que dama ne ko li may joué moo la dal mais nak euh, di leen ñaaxaat parce que da ngeen di sëy yéen nag <laughs> forcément bu ngeen génnee dem ñu fay leen seen bor ba wis leen du leen neex parce que da ngeen di toog naan su ma yëgoon te day fekk mu weesu ma dëgg. enquête mais yow Bintu yow ni ngay réglé dëgg man bugguma ko quoi parce que tamit des fois du dëgg yëpp la ñuy wax lu xew yow yaa koy jéem a lijjanti ñëw teg ko si taal bi te man li ma ci gën a <laughs> li ma ci gën a yem mooy yow koo ñëw di waxal rek day tiit day tiit parce que day xam ne carrément doo wax jàmm te Bintu tamit man mm. sa mag laa yow waroo ñëw di wax ak man di ma teg yenn fidde yi yow boo ñëwee ci man rek. mais xam nga loolu loolu nga wax noonu bañu ma ko dëgg la mais Olof Ndiaye dafa ne xeexu ginaar te cofu njëkk ba la. ñëw xam nga shérif bu cofoon ca njëkk ca njëlbeen ba shérif du am problème waaye dafay xoole sama yaay cof cofaatal ko moom muy soogee ñëw di cof une troisième fois amul amul amul njëriñ mais ñëw naa pour jàppale ko kay tuus naa ko brique may ko ciment mënul ñëw rek mu fondement raax mais defu ko taxaw ba coow gën ko ëpp loxo. mu soogee ñoo ne day wax tey tey tey bu ñu xooloon tey situation bi maa doon defar kër gi maa nekk seen avocat maay takk sama sama sama sama eh, lu mu tudd. lan. cravate euh, cravate. balaa taxawal leen di leen waxal mais yéen gisoo leen loolu seytaane ngeen ma jàppee. Arrêt chabo dafa nekk sama premier projet te ba nekk série bu ma neex.

man pourquoi ma demee ma ñu je sais pas ma une si grande boîte Marodi ñu jël ma ma ñëw fekk fa ay ba gën canaliser bien que mais dañ maa gën a yokk xam nga ku dañ lay ku ñu wax leen parce que dañ la mais cadré ma sama expérience ba pare gën m'a ubbil buntu buntu buntu buntu yu bari parce que ñu may sol lo xamne man xaw ma ko woon parce que da ngay def li ñu xëcc la kay fi bo démé defal lii ak lii boobu ñu lay gëna yok expérience dina gëna gën wan yoon bi man daal fi vraiment contente ci lolu man daal seen bi ñaar séquence dama marqué benn bi mooy sama mbéj bi nit yi daloon na métti na mbéj nañ mo ba ba sama lex yi ba ma paree pour ma lekk sax problème la ay tëndëndiir laa am deuxième séquence bi mooy bi kat yi jotee ak Chérif ma koy jàppale parce que foofu sama xol dafa tooy parce que je me suis dit que ne bu fekkoon ni man la ma dem sëy di dund même situation yooyu ñi ma nekkal lu ñuy réagiré ma ne pourquoi ma ba pas ma dem assister ko jàppale ko wan ko ne duma ko bon mais dama bëggoon mu xam fi mu nekk xam li muy dund pour ëllëg bu génnee lu mu mën a jànkonteel rek dina ko mën a dina ko mën a canaliser dina ko mën a téye parce que xam na ko ba pare moo gën mu koy xamee ci mbedd bi. bon man moom séquence bi ma gën a neex séquence yi ñaara muy séquence dóor parce que séquence boobu ñëpp la neex quoi ndax man dama fàtte dama fàtte après séquence yooyu noonu nit nit daf may woo téléphone mais dóor yaa métti na dóor man ma asi wala la bokk non yow doo bandi sax nii la demee wala dee mu doon séquence bu mu neex ak séquence bu ma xool jour korité waaw. jour Korité tamit séquence bu ma neex la ndax dama sant quoi boobu ma ay équipement taxuma xam nga bootuma ay sac jàppal bàyyil dama civilisé daal jour Korité nag jàmm ji doon daw ci kër gi dama waaw ak jàmm ji doon daw si kër gi ñëpp juboo doon benn war ma sëñ bi sama laax yooyu et tout Aujourd'hui, je pourrais dire que je suis vraiment contente de l'équipe Marodi parce que nous am une deuxième famille. des fois bu génnee sa kër ñëw fi day mel yaa ngi seen kër dangay xàppi di bégge di amaate la beauté dangay oboj ba yàqu man loolu loolu laa mën a wax bu ma reetaan lu nekkoon ci yow koy génne à 100 pour parce que tey boo xoolee Marodi ubbil nañu opportunité yu bari parce que man dama kontaan ci ñëpp Mareetu Jeanne Suki ñoom Thio ñoom Baye Moussa Xaaf Xalifa bu ndaw Anne-Marie Adams boo limee daal da juum boo limee ñoom Pedre da ñëw daal mel ne mel ne yaa ngi seen kër lekk di dàkkante xaqataay bi kaf bi reetaan bi man daal dama ne tey bu ma génnoon suñu kër may tax samay bagage rek ñëw teg buntu mënoo di rek fas yéenee dëkk foofu <laughs> parce que daal jàmmal nañu salaamatan lépp daal ñu ngi ko fay am xanaa waxuma dëgg. ankañ ankañ waaw. kàddu gu mujj gi moom xam naa lay doon di sant ñëpp di gërëm ñëpp xamoo ndax euh, maanaam ku dul sant nit doo sant yàlla daal. Mhm. ku dul sant nit doo sant yàlla waaw di ci profité waaye di sant euh, sama patron moom tamit bokk na ci ñi gën a tax ma def casting sama patron ak René sama xarit di gën a kontaan naan nag si waa Marodi quoi parce que comme Bintu ni mu ko waxee rek man dama daan yàkkamti tournage am xam nga parce boo ñëwee fii retour baay bi xam nga nga ñëw day ak benn jibisee fii mu ruube la benn toos maam baal la jàppal fii bàyyil daal heure ndékki bi rek ambiance bi fay am añ bi et cetera et cetera da ngay kontaan quoi waaw. daal équipe technique bi moom ay bànd lañ <laughs> ñoom coow ak ñooñu. coow de coow mooy dirisé dirisé moom daa ñëw def ñaari gang ak moom ay la indi. tracé gangu eh, gangu gangu kàccoor yi. Mhm. ñee ñëw tracé seen gangu gangu ñoom tracé seen beneen gang. ay wóy la coow moom li muy wax lépp moom ñeme ma koo génnee sama gémmiñ. ma daal xam ma lan lenn la su ma demee fii ci coow arrangé wu ma ma transversal beneen côté bi tamit maa ngi sant sama yaay sama papa ak sama cousin yi nga xam ne ñoom sama cousin ak sama njagasi ak ndayaasin géey mi nga xam ne ñoo wax ak sama yaay insisté ba sama yaay bàyyi ma ak ñoom xadi sooda faam ma daal maa ngi maa ngi maa ngi remercier ñëpp daal coow moon laqal daal moon sonal waaw <laughs> comme ni nga bind waxee day doon kàddu gu mu di gis sant waa Géejawaay yëpp ñoom tamit xam nga dañu maa yàgg di wax loolu boo yaa ngi yàq xaalis nii la demee wala ne xam nga di sant ñëpp daal waa Géejawaay précisément cité Comico 2 di leen wax ne seen doom ngi nii sóora yéen a ma gën a xam mais nag eh am na lu des ah am na lu des de bintu man damaa génneewaat samay godaas <laughs> ak samay baa mooy yu bees tàq di leen wax ne waa série Arrêt ba ñi ngi ñëwaat te day def buum day gën a neex. Mhm. génneewaat naa samay dàll yi ma am nii du ma ko du duma la ko sax wax nga may cat. man daal wax sax nga may maa fas yéenee ñëw ci ci ci wàcc wàcc soo mat laay éliminé tegee ko nee. Ah. indil leen yeneen paquet yu bees <laughs> yéen xaar leen ma rek maa ngi ñëw.